yëg-yëg bi askan wi di am nag gannaaw ndam léeg léegi kenn ku ci ne rek na mu la dikkee nga di ko fësalee ah, gune yi sax donte ña ko ci nar a fàttaliku fukki at ci kanam du ñu bari ah, terewul soobu nañu rek ci te mi law bay ci seen waar ni ko seen way jox yeeg seen maamaat yi defee ah, di beer ba ndëgëni si nag bile nataal mi ngi wër ci réseau sociaux yi ba fédération sénégalaise de football di war a gune gi ñëpp di peko ni rek image bi gën a taaru gannaaw saakru gaynde yi ndax luy desandi la rek ci xel yi doomi gaynde Njaay gaynde la Aïcha Fadem yi nekk ci réewu États-Unis bu nu sukkandikoo ci ña ko xam dëgg nee nañu rek ma nga sokkee ko bokki jawe nataal bi sax ñu di ko tëkkaleek bu Aliou Cissé di ko fësal ci réseaux sociaux yi Aïcha daanaka rek moo taaral profilu askan wi ci réseaux sociaux yi ku ne rek di wane mbégte ga mu am ndax nee nañu symbole la. <laughs> a lion? Yeah. yes. seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi. yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen kalpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait. te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni TapTap Send daf leen indil mbakkuus waaw waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak TapTap da ngay dund lu la nekk.